jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne tey nag ñu seet si xale bi nga xamante ne kenn du ko présenté ci làmb muy Gandia femme c'est un grand champion boo xamante ne làmb ji mu ngi ciy wane boppam lit simple bi gis ngeen jéego yi nga xamante ne mu ngi ko ciy def keroog bu ngeen jaaw bu ngeen fàttalikoo tuuti ñu dellu ginnaaw gis ngeen drapeau chef de l'état moo nekkoon champion chef de l'état bi nekk champion CEDEAO démb mu bëre stade Iba Mar Diop combat bu rëy daan loolu yëpp fas yéene nañ cee waxtaan. xale bi nga xamante ne bu simmeekoo di bëre si ñëw ay mbokkam dañuy ñëw rawatina waa Bitente bi nga xamante ne fa la dëkk dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi gën koo yaatal mbër maa ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw jii maa ngi lay delloo nuyoo di la bëgg di la siyaar bu wér a hmm. waa ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar waajur. Hmm. sant euh, <clears throat> sama waa dëkk. Hmm. di leen bu baax. Hmm. muy béttanti rawat na waa Ñombaar. Hmm. parce que man saa yu may dem moom drapeau Ñombaar lay représenté wu. Hmm. rawat na béttanti nag. di bëggee ñëpp di ziar ñëpp waaw. démb dañu gis ni da ñëw ci làmb ji. mais amul lenn lu changé ci yow. ba ci biir bëre bi sax amul lenn loo xamante ne changé na. mu mel ni ndox du bàyyi yoonam nga ko jàppee woon bëre dóor ak bëre simple lan mooy différence bi. waaw bëre simple ak bëre dóor moom man jàpp naa ni benn la. waaw depuis signature contrat bi journaliste yi jotoon jaar ki man loolu lañ may tegal. Hmm. mais saa ñu ma ko waxee dama leen naan affaire bi moom man benn laa ko jàpp quoi bëre daal bëre la amul leneen. Hmm. waaw. nga ñëw jëmb ci stade bi lan moo tax boo duggee rek. ba galañ yi commencé yëngu moomoo yëngu mbay yëngu rek yow mënatuma laa xàmmee pay euh, gànja faama bi toog ak gànja faama bi yoo gis stade ba démb am na différence lan moo a loolu. waaw faaw mu am différence ndax foofu moom mooy loolu suñu liggéeykaay la buñ fa nee moom mooy loolu caaxaan waratuñu. Hmm. moo tax boo ma fekkee biir gale bi moom mooy loolu beneen gànja ngay gis. Hmm. waaw. adversaire bi xamoon nga ko. adversaire bi wax dëgg fa yàlla mosuma ko teg bët. dégg naa champion la. waaw maa ngi koy wax. Hmm. dégg naa bëri naa ay combat sax. Hmm. waaw ñeen yi dinaan quatre ñeen yi dinaan xaw ma ay cinq six yooyu. Hmm. mais wax dëgg fa moom bi ma am ak moom contrat ba ni ma bëri ak moom nii moom démb laa koy soog a teg bët. seetaan ay vidéo mu xool làmb ji lan la mëneek nan lay bëree yu mel noonu. benn combat am laa seetaan su ma juumul. te boobu def naa ni du fii de du Dakar fii nii. côté yooyu la xaw ma ay côté kaw la xaw ma. waaw. vidéo bi noo def ba am ko. vidéo bi kii bi laa dugg rek. tapé ko waaw tapé mm. tuuram bi rek affaire vidéo bi génn. mais mm. part boobu moom gisatuma beneen vidéo am. Mm. waaw. démb ma yóbbante woon ci yow. nangu tontu da loolu lan la da doon junj wala lu mu la doon wax. kan si moom. moom neen nee naa leen moom ay mbokkam la doon nax noonu rek. ah day wax lu ko ne xam nga mbor moom bu la borom caméra yi bu ñu la tiimee nii moom bu la lu la saf moom da koy wax. damaa yóbbante woon kay ne ma demal laaj ko ci nu mu jàngee bëre. nan la tudd. waaw ci séeréer. nga ne ma à ah, suivre mais après dégguma nga nga tontu ci ba léegi. loolu <laughs> lan la code la wala lan la. la. Ah. privé kon ni nga jàngee bëri mënoo ko wax. non lu tax lool. affaire bi doon la ki man bu ma la waxee dëgg te yàlla tax ndax bi may jàng ci la ma gars yi doon coow. bi ngay jàng. bi may jàng. kon jàng nga école. jàng naa école. ba ban classe nga yem. sixième nga doon jàng di bëri. waaw moo ko doon boole. non kii nu mu tuddati sax affaire bi méttul woon noonu. Hmm. comme man daanu ma ko def comme yenn mbër yi. parce que man bi may jàng noonu di bëre suñu dëkk laa doon jàng ba pare di fa bëre waale comme bëre hmm. lamb yu ndaw yi nii rek. Hmm. waaw. léegi ngay bëre ci dëkk ba. tur fan nga gën gëm ni. war ngaa mën a téye làmb ci ban moment nga yëg ni Gandia Fama man mii kat champion laa ci làmb te gëm naa ni làmb war naa ci mën a am dara. non man ay mbër ay mbër yi ma daanal yóbbu ci làmb ja hmm. ñoo ma xool ni tiim ma ni ne ma bés dina ñëw di nga feesal seen gale bi ak ay nag man la loolu mënul nekk ñu man lu ñu gis ki yow lu ci kanam lii lañ ma wax ba onze ma dem essayé ko ma xam ne ñii dafa am luñ gis ki man kon man caaxaan waratuma hmm. waaw ñaata nag nga am boo ko doon xayma actuellement. non dëgg fa la li ma am ci nag moom mënuma la. mënatoo ko compter. non yaa ngi jaay. nag waaw. yaa ngi maye. <laughs> waaw maa ngi maye. yaa ngi rey lekk. chaque saison moom damay maye. Hmm. nii nii fan yee passé moom maye naa benn benn boy laa may nag fee fii mu la. kon de man dinaa xaar sama nag. waaw yàlla baax <laughs> léegi nga ñëw ci bëre dóor bi dem hmm. làmb ji en général bëre door dix neuf heures vingt heures day fekk mu tas. Mhm. ñu ne làmb ji semi doon nocturne mu la. Mhm. balaa commencé vingt une heure day jot wala vingt heures day jot. Mhm. yow bi ngay dugg ci stade suufu stade bi sax dajeekul ban heure nga ñëw stade ak ban moment nga takk ngemb ak takk ngemb bi lan la la def. no gars yi dañ dañ dañ ñoo woote dañoo woote. jox ñu convocation ngi ne dix huit heures. dix huit heures pile nañu fekk stade. waaw boo boo seetuloo man dix sept heures zéro minute ki laa ngemb fii waaw bi ma demee ba foofu gaa yi ne xaw ma xaan bu moo fa nekk. dañu hmm. patienté tout ba loolu jeex. Hmm. waaw. kon yow moment bi handball bi di joué yaa ngi woon ci biir stade. maa ci biir stade bi. di xaar toog ci biir oto bi am na yenn mbër yi ma fekk foofu. Hmm. ay yu bëri ñu bëri ñoom ñu jiit nañ ma foofu. moom si boppam moo ma jiitu ci làmb ji sax. sa adversaire. waaw. ci biir oto bi rek toogaay bi métti xam nga rek mooy loolu saa yu ma yóbbante ci làmb ci jéew ba rek gaa yi ma ba léegi gars yi ngi joué seen match bi. may mel ni kuy jooy parce que instant boobu moom mooy loolu dama yàkkamte woon gan gi. ak xabtal yeeg gàllaaj yi nekkoon seen xam naa ko nga commencé bëgg a jooy. waaw. Hmm. expliqué ma nan nga bëree ak adversaire bi ba daan ko parce que ñu bari nee nañ. combat bi dafa yomb quoi dafa yomb trop. non xam nga moom man moom wax dëgg fa yàlla moom Gandia moo mel noonu képp ku mu bëreel ba pare ak yow rek say mbokk dañuy naan combat bi dafa yomb wala ay journal dañuy naan combat bi dafa yomb. Hmm. waaw. est-ce que waroon na jàppanteeg yow ci moment boobu parce que gis naa muy dóor gauche droite mais loxo bi mu ngi doon dox. waaw daanu na dóor mais loxo bi boo gisee saa yi mu dóoree dama damay baara kii bi ni mm-hmm. waaw maa ngi fexe maa ngi téye sama gar saa yi mu sànni rek ma sa loxo bi. ban ban erreur la def ba nga daan ko. kan si moom moom wax dëgg fa la moom daa ragaloon. Hmm, dalaa ñemewul quoi. dala doon sóoraale ci bëre voilà looloo tax mu daan te en tamit man bëggoon naa ko dóor mu daanu nag. mais sama hmm. coach yi ñoo ma ne da nga da am problème euh, problème adversaire boo dooree Gagny ba mu daan rek dootoo amati. non est-ce que mënoon nga ko door mu daanu Gagny ba bul napp gars yi pour ñu lay woo ci xeex nga jàpp leen bëre Gagny xam naa la mbëru séeréer mënul xeex ah, moo bàyyi say ngay def. wóor ne la du loolu. Euh. gars yi faw ñu bàyyi loolu di naan mbëru séeréer yi mënuñu xeex et tout saa faw ñu bàyyi lool ah dëgg bu man soose laa tamit. soose nga waaw ah, man soose laa gars yi yaakaar ni séeréer laa te soose laa soo salaare waaw. te dégg nga séeréer wala déggoo séeréer. séeréer boo waxee ni mun naa dégg mais tontu bi may. doo mun a tontu mais dégg nga soose. soose moom waaye. da koy naan. mo ah waaw ndax yàlla nga nuyu sa mbokk yi nuyu sa mbokk yi ci soose. nuyu ñëpp jaajëfal leen gërëm leen ba déglu gaaja faam. waaw baa ni man ni ko ngal kondo mbaajo ngal siyaare mbaajo ka fa ko aldi ma ganja faam a ñogonjo kunu ay la duwajal duwal futata la quoi ale duwala fa mbal ko ma bi mbal ko hmm. ma yo kañum mbaɗo ɓeydo kon donc rawatna ɓetende mum yaalo ngo wolotaje noon kulotaje noon ceeɓa micro bi hmm. waaw ka commencé jagle kana fo fo kerla en soseñolde kata ɗula ɓe to ñom mbaɗo dal cinquante o village o ɓe mbiye ɓe condana hmm. ka fale ngala duwajel ko ala barka baake hmm. waaw li nga leen wax dama koy tekk ci wolof ndax dégguma li nga wax gàjja yow tamit non dama leen doon nuyu rek. Ah. di leen naan comme ñaan yi ma ñaanoon gis naa leen. gis naa ñaan yi. Mhm. waaw di leen remercier si seen ñaan yi. Mhm. di leen wax ni ñu yokk ñaan yi tamit. Mhm. maa ngi seen ginnaaw tey maa ngi seen ginaaw ëllëg. bii mooy sa ñaata combat arène. combat bi mooy sama premier combat arène. démb moo nekkoon sa premier combat. waaw mais gaañ nga ñëw rek bokk quoi da nga ñëw rek démb ci làmb ji bokk quoi. waaw gis nga comme ni te yéen surtout mbëru mbëru traditionnel yi fa nekkoon mm-hmm. ñëpp démb. Mm-hmm. làmb yi dafa yomb ci ñoom facilement ñu bëri génn ci. waaw faw mu yomb ci ñun ndax euh, ki daan bëre benn taaku takkusaan six combat. Mm. door a jël sa trophée bi ñibbi ak moom. am nga benn combat waru ko téye moom wax moom bu ñu waxee dëgg yàlla tax. Mm. ñun dañuy compétir saa su ne chaque jour dañuy compétir bëre cinq combats sixième bi doon final. Hmm. nga door a jot sa trophée bi xam nga loolu dafa métti. Hmm. te ñii moom mooy loolu wax dëgg fa moom. léegi ñu jox leen mbëru dóor yi wala ñu indi mbëru simple yi ci dóor bi bàyyi leen ngeen bëkkante gars yi daa mel ne loolu lañ bëgg parce que mbëru simple yi moom kenn bëggu leen a jël. kenn bugg leen a jël. waa même suñu waa écrit sax am na sama benn xarit boo xamante ne moom daf may tooñ ci loolu di ma naan. Ah. yéen bëri simple yéen mbëri simple yi bëri leen seen biir ngeen bàyyi ñun. bàyyi ñun yi waaw. ma ne su boobaa. Ah. xam nga rek mooy loolu. te mm. boo seetuloo mbëri simple yi tamit. Mm. ñu si bëri ñoo bokk dëkk. Mm-hmm. kon ñooñu ñaari ñaari mbëri ñu bokk dëkk moom mënuñu bëri arène. ah te da ngeen di bëri ci simple bi di mbëkkante bu mu saf. non gars yi moom loolu dañuy kii rek. dañuy kii rek. waaye dañuy <laughs> ah. Biraase nag lay dégg de. non dégg Biraase moom dama dégg moom xam na ni am na ñoo xamante ni moom dégg fa la warul seen la waaw. Hmm, actuellement fan nga jëm ci làmb. man kay ah, ma ngi nii toog sama ruk. non am adversaire moom doo ko am. nekk si sama moom da ngay laqaree wutal adversaire yan nga jàppale war ngaa mën a bëri yëpp. ja am na ñoo xamante ni fi mu toll nii Gandia Fama mi ñu xam. Mhm. sa tur vraiment yóbbu na la ci làmb ba ci yenn catégorie mun ngaa bëri ñoom mhm. mais am na xale yoo duñ say adversaire. ñan nga jàpp ni war ngaa mën a bëreeg ñoom. catégorie bi arrangé li nga wax ni moom dëgg la tour bi fu mu yëg jéem a jéegu fa. Hmm. ndax wax dëgg fa la moom bu dee wax naa dëgg te yàlla tax su ma la waxee sama âge bi danga may naan noo dellu ci école bi nga dem hmm. <laughs> fii de mën naa la ko. ban nga waxal rek moom boo waxee dinaa xam. carte <laughs> wax ma rek. xanaa ma génne la carte nga xool. <laughs> te gaaña Papa déet waaye gaaña. xaaral ma woon carte bi rek nga xool. Eh. waaw. te defoo jugement. non non boo ko gisee daal bu ko waxee. <laughs> Ah. waaw da nga koy xool rek nga noppi ci. <laughs> waaw bu ko waxee. Ah. papier bu am jugement boo ko gisee da nga koy ah, xam. suturaal la daal suturaal ma ci loolu rek. <laughs> non ah gaaña Papa yow jamono El Hadj Diouf kon xamoo ci dara. jamono El Hadj Diouf. Euh, am nga ci dara. période 2002. waaw. waaw kii naa ki mos naa tuuti. waaw ah, xaw nga fàttaliku nga bi nga ci foo quoi. waaw hmm. macha allah mu nekk loo xamante ne vraiment ku la xool sax même boo ko waxul aajam dina xam ne yow xale nga. parce que ci bëre bi ci fulla bi nga am ci làmb te doo fawee làmb. Euh, waa sa dëkk. waa Betende kañ nga fa fas yéene dem Betende. Betende fan yi rek fan yii incha allah dinaa fa dugg. Hmm. waaw sa relation ak ñoom lan la parce que da ngay bëri ji dëkk ba nu mu soree ñu jugee dëkk ba ba ñëw Dakar di la seetaan si gànja loolu du doon pression ci yow. non non du doon benn pression ki man. day neex ci yow. day neex ci man ndax loolu fierté la ki man. yàllaa xam li tax nekkuma mbër. wóor na la loolu fierté la ki man parce que dañoo xam seen mbër li ma dund ak ñooñu la moo tax saa fu ma mënta dem ci àdduna na ñu may toog li ma dund ak ñooñu la. Hmm. te et puis ñoo woon loo xamante ni. Hmm. ñoom amoon loo xamante ni mun naa mun naa comporter wu ak ñoom lu mel lu raw loolu daal. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. parce ñoom dañoo xam seen mbër xam seen qualité mbër. moo tax fu ma mënta dem ci àdduna dañ may topp. Mm-hmm. waaw affaire bu nekkul lu hasard la ko waaw actuellement ni kan nga gën a bëgg a bëreel fi mu toll nii ci lamb. non man mbëru arène moo dëgg fay la moom xaw ma leen. xamoo ci kenn. non non xaw ma leen de. waaw dëgg fay la même YouTube bi naa YouTube bi nii sax bu ma fa duggee moom YouTube bi laay tapé seetaan. Hmm. waaw mais mbëru arène bi xamoo ci kenn. non non xanaa tey ñoo benn booy bu weex rek. yox si ci pet rek puus ko. <laughs> benn booy bu weex bu loxo yi dox. léegi <laughs> kon yow pare nga pour jël booy yëpp. booy bu bëgg a ñëw. man kay maa ngi nii rek. maa ngi maa lay jaajëfal am na solo maa lay jaajëfal bu baax <laughs> ah. am na solo kii mu ne la. lan la làkk li mu làkk wax ko ba dégg mu ngi wax xaw ma li si njaago xaw ma deel bi ko bi nga wax bu ne loolu la bu ne nga jël lisaan li njaago ci defet la jóge du la jël xalaatu ko sax moom sax mooy loolu wax dëgg fa la champion la njaago ci defet la jóge sa bët daa ci liis <laughs> dégg nga mu ne waa. <laughs> nekk ma fii di laaj ay mbër quoi. Ah. wax dëgg fa yàlla moom. cadre boobu moom intéressé wu ma ah. waaw maa ngi déglu samay ménagères kuñ ma jox rek baax na. Hmm. maa ngi lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci ci ñëw bi ma ñëw fii fekk la fi. Hmm. fekk fi famille beeg ñëpp maa ngi lay jaajëfal bu baax. Hmm. di la bàyyi nga tàggatoo. waaw lu may tàggatoo moom. di hmm. nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. Hmm. waaw ko ci mel ni sama bàjjen bi ma nekkal fii. Hmm. ak jëkkëram mooy may mën a jub nekk ci biir néeg bi. waaw ak jëkkëram Palla ci Saña. ba leen bëggee bu baax a baax a baax. di siyaare eh, Pablo. sama jërbaat di ko bëggee bu baax a baax. di nuyu waa koñ bi yëpp. Cambérène de waa koñ surtout koñ koñ baaboy bu ma dekk nii. di leen bëggee bu baax a baax ndax démb moo dëkk fa yàlla moom woon nañ ma loo xamante ni. wan nañ ma loo xamante ne moom dëgg moom mun ma ko expliquer nit ba mu comprendre quoi. Mhm, mhm. waaw kontaan ñoom bu baax a baax. Mhm, ku ci mel ni ñoom Seydou xam nga. nekk ci ñooñ. rawat na booy yi may àndal. di leen bëggee bu baax. waaw di nuyu sama fam si bu baax a baax a baax. xaw ma seen fay. ñu nekk ñoom baadoo ak. soppe gàncax faam fu mu mënta nekk rek ndax foo mënta dem ci biir Sénégal moom man am naa fa ay soppe. waaw rawat na ñi nekk si diaspora bi di leen bëggee bu baax a baax di nuyu sama benn doom lay boo xamante ni bi may débuté maa ngi moom ñoo doon ànd mooy ngi Espagne ñu koy naan Top Sara ma koy bëggee bu baax a baax di nuyu sama benn yaay ju baax ñu koy naan Nafi Mané mooy toll ba France combat bi jàpp na ci bu baax a baax waaw ñoo kii suñu waa dëkk ku ci mel ni adab ak bantaba maa ngi leen bëggee bu baax a baax ndax gis naa leen gis naa niñ ma taxawoo gis naa ni ma taxawoo. Hmm. di leen ñaanal bu baax a baax. ndeysaan waaw amul lu ma hmm. leen wax ñooñ daal mooy loolu nag. Hmm. waaw am na solo yu alaaji Mansour bu alaaji Maane. waa suñu grand ju baax la moom it. dugal na loxoom ci affaire bi. waaw di nuy suñu monsieur le maire Pape Seydou Dianko. di ko ñaanal bu baax a baax. ndax boo boo seetloo li ko dalee CDA bi ba ñëw ci combat bi moom. mooy loolu ginnaaw yàlla moom moom mooy tax. supporter yi di mobiliser wu ñëw fi. muy joxe biis. ak yenn gars yi xam nga. Hmm. ak kii sama benn papa ju baax nga xamante ne Khalifa Sarr. moo ngi hmm. dëkk ba Tingeel. Hmm. ma koy bëggee bu baax a baax a baax. waaw di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp. waaw waa Ziguinchor tamit fàttewu ma leen. Ziguinchor waa Fams Club bi nekk foofu. ndax ñoom it ak Ziguinchor ak Dakar ni mu soree. dañoo dugg oto ñëw fii ñëw supporter seen doom seen rak xam nga. waaw seen jarbaat tamit. Mm-hmm. affaire bi noonu la demee quoi. ku lim daal juum. maa ngi mm-hmm. bëgg ñëpp di siyaar ñëpp. Mm-hmm. di nuyu waa ñu mbaada bu baax duma ma di ko wax. waaw ñu na rawatina Bettenty. Boosi Misira Jinak. fépp daal cinquante village yëpp hmm. maa ngi leen bëgge bu baax a baax rawat na waa Toubacouta tamit maa ngi leen bëgge bu baax a baax hmm. di leen ñaaral jàmm rawat na gàlle bi may dal foofu hmm. Père Sarr Père Noir Sarr maa ngi koy bëgge bu baax ñaar jabaram ma leen di bëgge bu baax di nuyu Ado Sila ak sama président Femmes Club Youssoufa Thior rawat na Pape Sarr maa ngi koy bëgge bu baax a baax di nuyu ñëpp daal bàyyi ma kenn ku lim juum jërëjëf am na solo jërëjëf am na solo ñu koy waaw waa mbooloo tamit. Mm-hmm. ma leen di bëggee bu baax baax. parcelle mbooloo démb ñëpp indi waaw gis nga gis naa mm-hmm. niñ ma taxawoo. Mm-hmm. ñoom daal moom wax dëgg fa la moom aw ma seen fay. waaw ndax boo seetuloo parcelle mbooloo maa fa mujjee ñëw. maa fa mujjee ñëw waaw. mais maa ngi mel ni ku fa am ay at at. di nuyu Moussa Dioum bu baax a baax ku sonn ki rawat na Ibou Ndiaye Obali. sama doomu de ak Oninga. ñoom Lamp. xam hmm. nga ñoom Baye Laat. Hmm. ñoom Zam. Hmm. ak ñoom eh, kii général. ñoom ñëpp daal. mbër mbër mbër parcelle mbooloo yëpp rawat na suñu coach Maam Lees. Maam Lees ak bateau Sénégal. Cheikh Ndière. ak Passagne. ñoom ñëpp maa leen bëgg bu baax a baax di leen ñaanal jàmm. ndax gis naa niñ ma taxaw daal. am na solo. waaw ñu koy jaajëfal bu baax moom Gandia Fama moom lañu ñu dalaloon mbokk yi dégg ngeen lu bare bari lu mu wax ci wàllu làmb. mu nekk xale boo xamante ne làmb am nañ ci moom yaakaar ñu leen di jaajëfal bu baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.